asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullah euh, man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences euh, dañu del suwaatun tey rek euh, comme ni ñu ko fàtte defee di waxtaan jëme ko ci réew mi muy ñaare waxtaan yoo xam ne ay argument ci la ñu sukkandiku wala coow yoo xam ne wax nañ ko ñu nocc ci ay baat waxtaane ko pour mu gën a leer ñaare ci boppu askan wi dama ne émission bi ñu fi yàgg na ban ko dal def ak léegi xam naa ne war naa mat fukki at yu tegal waaye boobu rek ni toqiwuñu tàyyiwuñu ñu ngi ci rek ñu ngi ci rek ñoo fi ànd xeex franc yi siiwal leen ba tey Sénégal bu ne jot na ci ñi fi nekkoon di sàcc alal réew mi ak jël tarixa yi di ko mbubboo di dunde seeni maam fi leen taxaw songook ñoom xeex ak ñoom ba tey gis ngeen ndam liñ ci am kan dellu sant yàlla kan dellu sant yàlla ba Sénégal amee benn xalif général xalif général boo xam ne waxuma la diine jullit yi ba ci diine chrétien yi moo géré dama ne Ndjim Dramé moom mooy xalif général du kullu diine ci réew mi kon cop ko Ousmane Sonko dana am dana am bu soobee yàlla Ndjim nag comme moo yor diine ji moo yor diine ji da ah, ca tegu encore mooy ñi xam ne jàng nan doon ay diplômé nga xam ne arabe lañ jàng ñooñu itam seen dugg ci biir état seen dugg ci biir réew mi seen dugg ci biir liggéey bi njiim moo ko yor kon njiim dugg nga ci mbir moo xam ne du yomb ci yow du yomb ndax booy may wax ne depuis 1896 ba heure bii ba heure bii li nga xam ne moom lañ bëggoon ci diine ji mënuñu koo am tubaab bi sa ëpp doole di duma àgg na ci di wañu suñ bëñ ba din jaay kon njiim tey bu la joxee responsabilité bii kullu kurib sénégalais war na cee jàpp war na cee jàpp ndax liggéey la boo xam ne du yomb mukk ci moom du yomb ci moom liggéey la boo xam ne LGBT dafa am ay pouvoir ay pouvoir ci réew mi dafa am ay pouvoir ci réew mi framason yi dama ne foo yaakaar rek foo yaakaar seen insigne yaa nga fa fépp dans le monde partout dans ce pays signe franc yi ña nga fa muy ñu gëm ñoom jàpp ci tëdd ci nelaw ci ba ci la ñu naxe diñ ci nax ba heure bi ñu toll njiim kon am nga liggéey boo xam ne du yomb du ma sa yomb de ndax àllaaj doo ngi fi woon jéem man lépp dara sottiwul sëñ ngi fi woon na lu ne dara sottiwul ndax dara sottiwul mooy franc yi dama ne fi mu bëgg seeni si àgg fa àgg na fa seen philosophie dafa dugg ci réew mi séy ci nit ñi loolu ñu naan la laïcité kii la locomotive de Satan kenn ku ne xam ne ne njiim moo jaxase réew mi liggéey bu toll noonu nag yow doo nga attunoo ko foog Sénégal yi jàpp ci foog Sénégal yi nangu dañ leen naxoon mbër bu bëree daanu da koy nangu dem gem bu juwaat defarwaat dikkaat ci làmb ji waaye buñ ko daan rek mun ne jeex na jeex na tàkk déedéet déedéet déedéet na dellu sant yàlla di santaat yàlla ba président Ousmane Sonko ak le président Diomaye xam ne conseil islamique dafa soxla réew mi da ko soxla ñu tabb la ko tabb ko ñu la ko tab nag dama ne ñu ne war a jëkk jàppale gën laa jàppale mooy say bokk ñi ca tegu dëgg dëgg dëgg mooy tous les patriotes sénégalais war na cee jàpp ñëpp war nañoo gëm ne yan bi woyoful woyoful ndax les francs-maçons prix pris du terrain dans ce pays te wóor na leen ngiim ndax xam nga diine du ma la ko jàngal tarixe yi amul benn bu ci jaar ci yoon taalibe it mënuñ ñoo jaar ci yoon ndax ay nit la lenn leen na brainwash xamuñ fi ñu teg seenu tànk xamuñu ko kon jiim tu as responsabilité yoo xam ne yow doo nga mënul dem foog Sénégalais yi jàpp ci te nangoo muñ te xam ne ñoo nekkul ci dëgg jubbanti dafay metti ndax ak weñ il faut nga tàngal yor salimoo di tàngal yor martu di dóor di dóor ba weñ ko jubbantiku te doomu aadama dog weñ dog weñ kon jubbanti du yomb du yomb waaye lii nga xam ne jox nañ ko jiim ba ma xam buñ ko ci jàppalee buñ ko jàpp dana ci am ndam dana ci am ndam bu baax a baax a baax a baax ma del si nag ci problème yi nga xam ne am nañ ko njiim li ñuy lekk dara baaxu ci dara baaxu ci war na laa wóor ne dawlin ji Aziz Ndiaye di jële Chine di ko dugal ci réew mi ay jullit di ko lekk njiim def ci investigation lii maa la ko wax dawlin ji Chine lay jóge américain sax duñ ko lekk dawlin bi nga xam ne ko recycling moom la ñuy jël ak les rejets des abattoirs ak ay deri mbaam xuux lépp lu neen dañuy jël ba ci ay graines yoo xam ne nit waru koo lekk yooyu la ñuy def ci lu mel ne ab dax dax boobu ni jël di ko lakkat ak les huiles du caniveau huile de caniveau na ko gëstu njiim ndimbal gëstu huile de caniveau yooyu la ñuy dajale def ci dëwlin dëwlin yooyu la ñuy jël di ko indi Sénégal man dem naa ba Chine xam naa lañ koy defee Aziz Ndiaye dëwlin yi mu fi indi baaxul diw yu mbaam xoox la rakki Farba Ngom jooju doon ñu fi indi baaxut lépp diw la goo xam ne Chine la jóge ci ab dax la jóge ndax boo xam ne ñu ñoo ko liggéeyal seen bopp lu niin lu ne ak luñ for def ci ba ci huile du caniveau dawlin yoo xam ne ci caniveau yi leen koy jële moo tax noir ami américain yi ne dama ne bu fi dawlin dugg bu fi dawlin dugg man j'étais en Chine à deux reprises ànd ak américain yii dem fa nu xooli gëstu ji seet chinois yi ni ñuy dundee en communauté ba réussir pour ñu introduire système bi nga xam ne américains yi ak noir américain daañu ko mën a comprendre the urban league lu ma xam laa lay wax kon en tant que imam en tant que yow lañ dénk réew mi yow yaay ponkal mi toog ci kaw na nga fexe ba importation yi nga contrôler ko na nga fexe importation ko ndax kat bu dee quatre-vingt-sept pour cent de musulmans war nañoo xool li ñuy lekk duñ nangu nag duñ nangu gouvernement bi wut ay alkaati wut ay gendarmerie wut direction des investigations pour ñu kar drogue dealer yi maanaam ñu indi drogue ci réew mi ñu di leen kar te ni ay jullit dama ne war noo kar ñi indi mbaam xuux diñ ko jox war noo kar ñi indi sàngara diñ ko jox dama ne xool leen wax lii jaadu na ñi indi drogue ci réew mi di di kar di leen jàpp te yàlla digle mu ñu war ko consommer buñ koy dugal ci réew mi kenn du wax dara comme neex dugal la neex njiim ah, loolu lañ ci taxaw taxaw ci de parce que ëllëg des na la laaj de responsabilité bii nga xam ne moom la la jox moo gën a grave président de la république ndax le président a dégage ses responsabilités dugal ci pax moo xam ne si digg yàlla la digg doomu aadama yi tarixa yi wóor na la ne jaarut yoon yow wóor na la ne yàlla kenn la wóor na la ne muhammad rasulullahi moom donga wóor na la ne keneen kun fi wooye ab yonent ci réew mi day nax nit ñi te xam naa ne danga am fulla joo xam ne war ngaa taxaw leeral ko beneen yonent bu juddoo senegal mi ngi fi loolu waroo koo nangu waroo ko nangu te jàkk yii ak jumaa yii ak daayira yii ak tëgg yi ak pecc mii defe naa ne xale yi dundumoo ko gën xale yi dund ko gën am nga xam-xam boo toogee xalif général bu ne ndaxte yaay seen kilifa yaay seen kilifa man sama maam Ousmane bi fi tubaab bi nekkee daanaka lépp loo xam ne ñu koy gëstu yëm ci diine wala luy indi jàmm ci loxoom la nekkoon. tous les dama ne tous les indigènes sama maam daan atte ji bu Burkina Faso Dramé la sant maam Ousmane moo yu sama bàyyi du ma làmbatu te lu ma la wax boo ko weqee waxee da nga gis jiim dama lay xamal ne franc yi franc yi dem nañ ba dugg ci jumaa yi franc yi dem nañ ba dugg ci yére yi nii sol franc-maçon yi dem nañ ci musique bi ñu tëgg sax lépp franc la franc-maçon yi dem ba si yaay yi ñuy jullee lépp dessin franc-maçon la franc yi dem na ci rudi ci kër yi mbassin yi ni sol napp de table lépp ay signe franc ci ne kooku domination ak duma yoo xam yi duma noonu ko loolu rek la yow nag yaay ki war a jiitu yaay ki war a xamal sëriñ si yaay ki war a xamal ñëpp ban ma xam ne ñun ñi kat am na leneen lu ñu gëm lu la franc-maçonnerie li fi nekk nañ ko wax te Aziz Ndiaye mii nii mu gàmmoo Tiwaawan man dama ci kersaw te kenn mayu ko kenn mayu ko ku dul xalif général bi ak ña fa ne ndax yàgg na koo def yàgg na koo def lii fi nekk dañ ko bëgg ko dëgg waaw dëwlin ji muy dugal ci réew mi baaxut dëwlin ji dëwlinu mbaam xuux la jiim xool li ma lay wax bu añ ba suur ay soxnaam tegal ko ceebu jën dëwlin yëpp deretu mbaam deri mbaam xuux lañ ko defaree imaam bi réer ci ba régg te loolu doyul jabaram rouge à lèvres moom lay jiwoo lépp mbaam xoox dama rouge à lèvres ak produit cosmétique yi lépp lépp mbaam xoox la man damaa liggéey ci compagnie yi boo ñëwee mu ubbi sa jabar gaam benn gaam dama doon ubbi ay gaam xam palmolive ni mu koy doxee xam yeneen campagne yi mag xam ni mu koy doxale xam fashion fair li muy liggéey ma xam lépp waaw nga ne kilifa diine nga imam nga sa soxna duy rouge à lèvres ci gémmiñ ba mu diis gan yow nga fanaan moom mat ci lépp ci lépp xëy ngàbb ab xutba bëgg a jiite askan wi def naa jiim war nga investigation port autonome war nga benn laboratoire boo xam lifin gu dañuy xam lu mu doon ni ngeen di seetee drogue bi di seetee drogue bi dañu ba ngeen xoolee noonu li dugg ci réew mi lu mu doon est-ce que ñu war nañ koo lekk te chrétiens yi suñu mbokk lañ yàgg nañoo ànd chrétiens yi dañuy benn bureau boo xam ne seen i commande ak seen i importation fa lay jaar fa jaar kenn bu ko xonte dëgg la SOBOA depuis mille neuf cent vingt quatre vingt cinq la mi ngi fi usine dama ne sàngara lay sàngara lay defar te usine mu doon ci réew mi perte la usine bi fa am perte nga waaye la SOBOA mosuñoo perte ndax sàngara si te li ñuy defar man li ma ci jaaxal ab camion rombaguma jëm mal yi gisaguma aéroport ñu la am sàngara naan dañ koy génne li ma gis daal doomi sénégalais yi ñoo koy naan di tëdd ci mbedd mi daanu ak a saw seeni tànk man yàlla dogal na musuguma dox ba gis chrétien bu màndi daanu ci mbedd mi ñi gis daal ñu mandi ñun tudde Mouhamed ñun tudde Moustapha ñun tudde Ousmane ñu tudde Bamba ñu tudde Malick ñu tudd Seydina ñooñu képp ñooy naan di màndi di wacc ci mbedd mi tëdd tey sàngara yow jiim war ngaa xam ne baaxut war ngaa dellu xam ne mbaam xuux baaxut war ngaa xam ne itam rouge à lèvres bi jigéen ñi diw ci seen tuñ yi seeni i borom kër di koo màcc xëy bëgg noo jiite dama teggi nuun jiim lii ma lay wax dangay ngay mbokk boo daanoo sama kersa lay doon moo tax mu cible di la soñ IFAN mënoo fa jaar doonub dof xam naa IFAN yi lan institut fondamental la l'Afrique noire xam naa lu bi Cheikh Anta Diop xam naa pour quoi ñu defoon ko tey boo fa génnee boo fa génnee sama xol day sedd nga un docteur boo xam ne kenn du werante sax xam-xam waaye nag xam-xam la lay àndal la lay àndal ñi fi woote naan ay yonente lañ nañ arrêté beneen yonte amu fi ku dul yonte bi sallallahu alayhi ñi fi woote naan sa maam yàlla sa maam nangam il faut les arrêter parce que suñuy doom ñoo leen di dégg di leen gëm ñi fi nekk di nga am taxaw defe ne ëllëg seen maam ñooy atte ku seen maam neexul doo dem aljana di nax askan wi njiim say responsabilité la nga limiter leen freiner leen Cheikh Omar Diagne ku dëgër la ku gëm li muy def am naa yaakaar ne su ngeen joxante loo collaboré am na lu bari lu mu xam loo xam ne mën na laa caa jàppale ngeen boo ko defar ngeen boo ko defar ñoom président Diomaye nii ak président Sonko xam nañ dara sax xam nañ dara waaye dañ dellu fàttaliku ne tubaab bi leen jàngal te ko tubaab bi jàngal sab noona la jàngal te sab noon du la jàngal mukk noo ko rombe kenn boo ko waxante dëgg kan boo ko waxante te dér ci lii ñuy lekk ak di ko naan yow lañ dénk lépp lu ci affaire religion te Sénégal les musulmans font une forte majorité une forte majorité c'est-à-dire quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans kooku jiim euh, ku ko am ci élection gagné donc tubaab bi dañ ne dans une démocratie la majorité fait la différence et cette différence est exceptionnelle kon jiim ngir yàlla bu ko maslaa dellu ci téere bi ahlu kitaab xool li ko yàlla bëgge nga bokk ko defee noonu te peine de la mort aussi nga dugal ko assemblée nationale ba nangu ko sàcc yi bëgg ñoo amerde bu leen bàyyi ñuy dem ak i loxo bu leen bàyyi ñu dem ak i loxo quatre-vingt-quinze pour cent des musulmans nga nangu penku nangu soowu nangu màggal nangu gàmmu nangu tam ah, nangu sarax nangu addi ak asaka te nanguwoo charia est-ce que loolu diine la comme yoo leen dénk diine ji tu as responsabilité loolu il faut imposer ça à l'Assemblée nationale ñu génn ci laïcité bi sukkandiku ci lakkum diine ko waliya diine yàlla avertir lañu ba pare taggal nu l'islam nu war a doon ay julit yoo xam ne lépp loo xam ne si luy jëriñ ab jullit la wala mu njëriñ jullit war caa xëy di ca gont kon buñ la dénki responsabilité noonu war nga cee taxaw waaw Aziz Ndiaye dama ne yii nga nekke Bako yii nga nekke Bako imam boobu sant Fall it di taxawaalu comme un prostitué kooku dama ne du nit du nit li mu wax ci télévision bi lépp mi ngi koy dégg te ñu mel noonu waruñu feeñ ci télévision waruñ cee feeñ ay nit lañ ñoo xam ne dama ne duñ ay doomu Aadama fii Amérique nga xam ne le christianisme am na fi doole fii et aux États-Unis nga xam dañoo xam les respects bu doomu aadama Bill Cosby bi ko fi accusé ne ko da ngaa siif nit boobu ba ndëgë ni benn vidéom benn vidéom mënta daw mënta daw ci internet bi kon imam yi nga xam ne dañoo ànd ak LGBT ni ci biir jaxasoo ak xale yi ak ustaas yi nga xam ne ñoo gën di doomeeram ñëpp ustaas yoo xam ne waxuma la am njàng waaye nit leen ñoo xam ne ci ay lobby lañ nekk comme oustaz boobu sant Fall moom ay taat képp ko intéressé moom doo nga lay waxtaanee ku mel ni Ahmed Khalifa Niass ku Ahmed Khalifa Niass ah porter plainte en tant que ministre pour ñu arrêté ko parce que li mu wax wax yonent bi sallallahu alayhi ak li mu wax fi yonent bi jaar dama nit wuru ko wax waxuma la akub jullit waxuma akub jullit kenn dee la ma del si ma ma si El Hadj Ndiaye El Hadj ñu ngir yàlla yaa ngi rakki far ba ngoom jooju dëwlin yi dugal ci réew mi baaxut yow wóor na leen ne wóor na leen te leer na leen ne les rejets des abattoirs lañ jël wóor na leen leer na leen huile de wóor na leer na leen recycling oiling wóor na leen am na ay graines yoo xam ne kenn accepté wu ko pour def ko dëwlin yooyu la ñuy dagale rukk ko dëbb ko lakk ko def ko ak dëwli mu mel ne ab dax ñu indi ko Sénégal duñ ko jaay suñ imaam yi ci la ñuy añ ba regg dem jiite ñu kon lu mel noonu alerte la njiim am nga liggéey du liggéey boo man yow dong mais Sénégal gépp ci war a jóg te assemblée nationale gi comme la ma la wax na am dix pour cent imam yoo xam ne ñooy xutba avant ñuy commencer bu noppee itam ci projet de loi boobu ñu xóotbaar ko seet ko ba xam dëppoo na ak lislaam ñu door koo nangu ñu door koo nangu dama ne port autonome boo yoree fetal doo dugg métal yaa dañ lay jàpp nga aéroport métal détecteur yi ñaa nga demee lay jàpp nga yor drogue dañ lay jàpp kon boo yoree loo xam ab jullit waru koo lekk nga jëm ci réewum quatre-vingt-quinze pour cent musulman droit ñu war laa bàyyi nga di ko dugal lu wax jooju ku ne xam ne ko mu indi responsable da ngay sama mbokk jël ko kon nun li ñu war a def surtout Ahmadou Dramé ñu jàppale li ci xam-xam jàppale li ci dëgg jàppale ci loo xam ne ku ko dégg xam ne nii la te lépp sukkandiku ci alquranul azim lépp sukkandiku ci charia ak dëgg ak dëggu ak fulla mbiri tarixe yi nag boo ko toppee danga nga da am problème boo ko toppee da nga am problème parce que ni mu formé xamagoo ko te ñun xam nañ ci lu bari léppi naxale daanaka boo ci sóoboo da nga am problème may soññi président Diomaye ak président Ousmane Sonko nañ def attention nan def attention Cheikh Omar Diagne du am noonu Cheikh Omar Diagne nit la koo xam ne dafa bëgg a defar dafa bëgg a tabax dafa bëgg a yëkkati donc il faut ñu ànd ñun ñëpp am luñ gëm ndax rupture la réew mi wote rupture la réew mi laaj le changement mooy li xam ne moom la ñëpp bëgg le changement dama ne mooy priorité la fi nekkoon amatu fi leneen na fi ne waaw ñi nga xam ne ñu sàccoon alal réew ak ku mën a doon ku ne njiim taxaw ci njiim kenn bu ko wante dëgg du ma la jay mukk waaye la des du Sénégal dama bëgg a gëstu ñen a jël xaalis bi ñan ñoo roñ la ñan a ko jël ñooñu boo leen xamee te nga nekkal fi diine ji war ngeen di contact ñu delloo si ko njiim problème bu mag a mag nga yor toolu Sénégal yi suufi Sénégal dañ koo sàcc am na ñoo xam ne dañ koo doon ci miraas ñu ngi koy jaay ak a luy ak di ci def lu ne njiim am na lu ci yonent bi wax am na lu ci alxuraan wax ci loo moomut riba bi nga xam ne mooy nar a yàq diine ji war nga cee jóg wax ci parce que yow lañ dénk loolu nga jël responsable yow yaay xalif général bu diine yi ci réew mi kon yaa gën a jege pour nu mën a wax ak yow sur say bokk di wax ak yow dañu bëgg góor góorgóorlu ci produit yi nga xam lépp dafa laal lu daganul bu mu duggati ci réew mi wax naa leen ne ah yàgg naa ko wax sax li jëm ci ay rouge à lèvres ay produit cosmétiques yi te am ni lépp di ci ëpp di ci ëpp graisse wu mbaam lañ ko defee walla diwu mbaam loo xam ne daganul ci yaramu yaramu jullit xoolal lii rek nga sol say mees ni ab jullit yokk sa karaw karaw goo xam ne xamoo gu indul xamoo gu yéeféer la xamoo borom karaw gi ba muy dee nu mu dee xamoo ko nu jaay lay karaw nga takk ci sa bopp dolli say we yëkkati sa ay xef sa dër bi nga xolli ko lu kukk weex tàll njiim ay responsabilité laa lay wax nii lépp loolu lislaam nanguwu ko nangu ko bu ko nangu loo ci nangu bàkkaar yi dañ ci am te yéene wu la ko poste bi nag li wax rek kenn mënu koo yor kenn mënu ko ndax sëriñ si dañoo jubut tàmm na le luxe le matériel la femme ak ay tappale ay ay tool lépp loo xam ne dañ ko dañ leen koy defal loolu tàmm nañ ko moo tax pour nga jubbanti leen bu ñu waxante dëgg du yomb Aziz Ndiaye sa pom yi ëpp na dama déglu ñi ngi indi ci réew mi di koy jaay baaxut man dem naa ba Chine xam niñ koy defaree maa la ko jëkk a xam foofu wóor na yàlla ba may xam dëwlin ji nañ koy ak di dem Chine vingt ans amoo ko vingt ans ko kon lii ma wax lu ma xam laa leen di wax te maa ngi ñaan jiim Dramé def ci ay gëstu ak recherche bu dawlin ji baaxut bu ko fi dugale si ndax ci lay imaam yi reer ci la ñu ci la ndékki ba xëy ba ngàbbu xot ba bëggunoo jiite loolu duñ ko nangu mbaam xooy it yàgg naa ci def même am na émission boo xam ne maa ko defoon jëme ko soxna Aida jàlloo waaw ni mu nekkee ëpp na rouge à lèvres ngay woote diine diw gë daxub mbaam xoox diw ko ci say tuñ ba mu xonq cur dama du yoon pastel yi pastel bi ngeen gis yëpp mbaam xool lañ ko defaree bëgg mu jàpp ci der bi kon yu mel noonu bu amee nga xam ko te ne yooyu ministère bi yaa ko yor dama ne war nga am fulla joo xam ne da nga taxaw buntu poor lépp loo xam ne dina fi dugg te daganul ñu jëlee ko fi te Soboa 1924 ba nëgë ni mi ngi fonctionné usine dama sàngara képp lay defar defar leneen te usine yëpp perte na ba mu des moom usine bu fi jaar parce que perte Soboa depuis 1924 mi ngi daw ba nëgë ni te resiku ci te li muy dëgg lépp di ko liggéey muy sàngara ñu jullit yi ñoo koy naan kan waxante dëgg loolu nag bu fekkee dañ laa dénk conseil islamique nga yor diine ji dama ne war nga am fulla joo xam ne soba dafay jóge ñu def fi leneen lu dul soba kon maa ngi ziara di jégglu bu baax nag bëgg leen tegal nag vidéo bi nga xam ne maa ko defoon jëme ko ci cosmétique bi nga xam ne moom la jigéen ñi diwoo te lépp di mbaam xuux lépp di mbaam xuux ba ngeen diglu ko akum xel ba mu àgg bu ko defee ñu seet prochainement ban waxtaan la ñuy wax kon ma teg bi ñu bokk ko seetaan bu baax a baax jaa ngeen jëf wa rahmatullah man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences xanaa dellu di jéggalu di jéggalu bu baax a baax ndax vidéo bi ba ma ko génnee euh, am na ñoo ma woo am na ñoo ma ci daara jit ne xamewuñ ko noonu békki am na ñoo xam ne aussi dañ may ñaan ne ma Euh, comme ñoom xamuñu ko woon euh, nañ leen suturaal euh, dindi photo yi ah muy commentaire yu bare bari yoo xam ne dëgg bu xasee ba ñëw booy nu bokk wax ko comme ay soxna kilifa lañ ñoom ñëpp duy séentuñ rouge à lèvre ànd ak seen i jëkkër di ci bànneexu te rouge à kenn ku ne xam ne mook tusngal bii lépp mbaam xoox la mbaam lañ ko defaree comme ñoom wax nañ leen ko war nañ koo xam ñoom lañ ko bàyyi nañ ko bàyyi waaye vidéo bi ci la ma gis man jërut dindi ma bëggoon nu bokk ko seetaana te dégluwaat ko du rouge à lèvre rek du pastel bii rek déedéet ba ci déglu ni ñuy lekk li ci ëpp mbaam xoox la gâteau yi ñuy jënd mu jóge Chine di ñëw gâteau yi benn baax ñu te suukar si baaxul moo tax ñu war a xool li ñuy lekk mooy lan ak li duñ suñ der bi mooy lan cosmétique bi lépp li ci ëpp li ci ëpp quatre pour cent yi su mbaam lañ ko liggéey waaw am na ñuy jël huile de palme am na jël yeneen diw de soja ak yeneen diw di ko utiliser mais bi nga xam ne moo gën qualité bu baax bi bi nga xam ne moo wér te moo baax mooy bi jógee ci mbaam ndax der bi la dafa woyof der bi dafa nooy graisse gi day tafu ci sa der moo tax pastil yi day ñuul kukk niin boot lépp graisse su mbaam la dafa jaadul na ngay kilifa ak diine di imaam sa soxna diwi bëtam takkali tuñam tëdd ak yow nga fas yéene mat ci lépp boo xëyee jiituñu Ahmed Khalifa Niass loolu du dëgg du dëgg kan seetaa dañuy def ànd boo ko déglu vidéo bi yebuma kenn tooñuma kenn sabatuma kenn lii du ay teggin ci réew moo xam ne da ngeen nekk ñëpp ay julli leen quatre vingt cent de musulmans ngeen di jël mbaam xoox di ko diw ci seeni yaram di ko toccami di ko diwoo ah dama ne di tëdd ak seen i jëkkër dina jox seen i tuñ di ko macc ngeen xëy toggal leen dëwlin yoo xam ne lépp mbaam la dama ne kan waxante dëgg kan waxante dëgg amu amuñu pexe amuñu pexe nu ñuy def amuñu beneen dëwli am mais am ngeen gerte am ngeen leneen am ngeen diwu segal am ngeen diwu sump dama ne kan bokk jóg te bokk seetaan vidéo bi te ngeen jéggal ma asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences Euh, dañu di waatoon rek comme niñ koy faral defee à chaque moment ndax société bi dañ ko bokk mu yaatu ñu am fi njaboot war koo surveiller war ko waxtaanee wara a seet nu koy bokkee jëf ba kenn ku ci nekk doo laal sa morom euh, tey nag fan yéen waxoon naa ak yéen jëmmi ko ci mbirum lekk gi te liñ lekk dara baaxu ci bi yoon ci cosmétique bi cosmétique bi dara baaxu ci cosmétique bi lépp mbaam la dama bëggoon ñu seetaan vidéo yi ba noppi door a kon waxtaan ça c'est le travail de Bruno il est directeur des abattoirs du sel en Corrèze une fois les morceaux consommables vendus il trie le reste vous voyez ces qui vont être utilisés pour faire euh, des cordages euh, des guitares, des violons ou autres. Voilà une, des autres utilisations qu'on peut faire avec le, le Encore euh, une autre utilisation avec les oreilles, clandestine à la fabrication de produits cosmétiques, des masques pour euh, les cheveux, des crèmes euh, c'est ce qu'on appelle le, gras, c'est du gras, Je, vous fais noter l'aspect gras et très tendre de, cette partie du porc. et qui euh, eh bien, se destine à fabriquer le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres que, que, le, que ces dames utilisent grassement et qui vous permet, lorsque vous vous embrassez, d'avoir un port entre vous. Aujourd'hui, c'est justement du gras que Bruno doit livrer à un laboratoire cosmétique. Nous n'avons pas été autorisés à filmer cette étape de la transformation du porc, mais dans cette pharmacie, la propriétaire nous confirme qu'on trouve bien du gras de porc dans les rouges à lèvres. Pratiquement Avec, avec de la gélatine porcine. Et dans une pharmacie, du cochon, on n'en trouve pas que dans les cosmétiques. On trouve euh, de, des médicaments à base de porc, soit euh, le médicament en lui-même, soit l'enveloppe du médicament qui est composée de gélules. Chaque fois, comme vous pouvez le constater, on a euh, cette pellicule est faite à base de gélatine. Si vous ne mangez pas de porc pour des raisons religieuses, pas de panique. Gabriel Elfassi est rabbin en banlieue parisienne. Il est très clair, quelle que soit la religion, quand il s'agit d'un médicament, il n'y a aucune interdiction. Toute religion qui se respecte euh, se doit de soigner ses malades. Donc euh, à partir du moment où euh, il y a, on va dire, un remède qui a été prescrit par, son médecin, que, que, cela contienne une matière grasse animale qui est infime qui est presque, euh, on va dire, inexistante, euh, il n'y a aucun problème, on peut, on, peut avaler donc ce genre de médicament. Je prends l'exemple de la gélule, bien sûr. Le cochon est donc omniprésent dans notre vie quotidienne. Désormais, vous regarderez vos pilules, vos crèmes hydratantes ou vos rouges à lèvres d'un autre œil. Euh, encore ñu dellu di jéggalu di jéggalu Sénégal dafa soxla ndimbal dafa soxla ndimbal ndax lu bari xamuñu ko tubaab bi dafa këf sunu xel ba daanaka yi ñuy def du suñ aada du suñ diine suñ civilisation amul leen du ko nangu ba ci suñ domaine culturel ñu ngi ko toppandoo nag tey sax lu bari tubaab bi ci la ko gisee wañu ko toppandoo ko def ko ci beneen modèle wañu ku dégg nga di am alal ci noonu. waaw loolu lu ma dagg ci vidéo ba ba ma defoon rek la pour musal leen ci tuuti mais xam naa prochainement danaa ko tegaat lépp ñu mën koo réviser waat seet ko ah, maam loo xam ne rek maa ngi koy wax keroog ca vidéo bële. Euh, di laaj suñ kilifa gi nga xam ne moo yor diine ji tey euh, euh, nan xoolaat mbiri impôt sur le revenu waaw c'est impôt parce que dafa yor a ànd ak yorta ànd waaw te ndoxum géej ak ndoxum dex ñaare ah duñ faral di daje ma doon laaj ma laaj nun jullit yi dana metti ci nun bu fekkee ne li nga xam ne moom la ñu am nga xam ne mooy suñ saleer bu fekkee ne génn leen ci impôt su le revenu par exemple ñu fay impôt fay patente ah, ba pare encore wàññi ko joxe azaka wàññi ko encore sarxe jóge fa natt muurum koor ak xarum tabaski waa ndax yëpp buñ ko ci calculer duñ affaiblir wala comme l'islam la mënuñoo toog ak état état bi organiser ñoo xam ne ñoo collecté fonds yooyu ak seen ni ko mën a boole ba dellu si ci askan wi comme ni ko américains yi defee rek waa église bi ak ñi nga xam ne ay organisation humanitaire lañ nga xam daan nu joxe l'impôt mais dafa déclaration yi ñuy def waaw man daal yaakaar naa ne loolu buñ ko teglee buñ ko teglee dana metti ci ñi nga xam ne ay juddit lañ ma leen ci laaj seen xalaat laaj ci assemblée nationale waaw kon sëñ Dramé ñu dellu di ziyaara ay xalaat la rek ay xalaat ndax foog nu xalaat nag ndax bu fekkente ne li nga xam ne moom lañ am ci bénéfice lu toll dix-huit pour cent la nga xam ne moom lañ ci am boo ko génnee boo ca fayee lempo fay ca patente joxe ci addiya joxe ci ngurum koor sarxe ci xarum tabaski doo ko am waaw loolu nag bëggoon na assemblée nationale débattre ci te député yi nga xam ne ay imam lañ dal ne imam yi déglu ne imam yi taxaw déglu ñu def ko débat assemblée nationale wuti économiste ñu seet lu jaadu nu bokk ko def te yàlla tax maa ngi jégalu bu baax nag te ziare ñëpp tey ziare ñëpp man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences yàlla nañ buur yàlla suturaal yàlla nañ buur yàlla suturaal te ndi jàmm ci réew mi peace and love jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf jaa jëf jaa ngeen jëf